gaay nee nañu nag Bassirou Diomaye Faye démb ca boruk Paris la France janoon na fa ak Emmanuel ndaje mi ñu jagleel wàllu ko vaccination pare ak Dakar soppi nañ kap ba bu ñu sukkandikoo rek ci suñu naataango ñaari njiitum nag waxtaane nañ jamono ji rek nañuy def ba suqali waaye tamit gën a yeesal lépp loo xam ne secteur santé bi ñoom tamit jot nañu dellu siwaat joxe rek gis-gis gu yees bi nga xam ne bëgg nañ ko daal gis diggante partenariat bi nga xam ne am na ci France ak réew ko Sénégal wàllub démocratie bokk na tam ci ponk yi nga xam ne jot nañu ko dëxëñ ci seen ak waxtaan bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango la tribune yéenekaay moom ci coole nag nee na France ak Sénégal ñoom gën nañu rek dëggal seen ak coopération Bassirou Diomaye Faye moom ma nga nag ca tànku kooke di Macky Sall fi wutu ñaari réew yi ñoom bëgg nañ nag gën a jëmmal projet structurant yi nga xam ne daal jot nañu fi am ci pàcc yu bëri rawatina rek wàllu ko énergie production ba ci agriculture ak coowal vaccin yi la waaye nag coow li ci laxasu rek bokk na ci jamono ji maître Juan Branco mi nga xam ne nag nga xam ne jot nañu ko fësal panafricaniste yi tamit ñoom ñëpp ñu ngi ci bile ko coow Guy Marius Sagna moom laaj la daldi samp euh, France dégage moom ci lu ni mel ana rek ban taxawaay la ca am bu ñu sukkandikoo ci euh, la tribune yéen i kaay Vox Populi quotidien moom nañu nag euh, partenariat bile ana lan la ñu cay gagné respect la partenariat boo xam ne tëddee na njaaxanaay bokk na ci rek laaj ya ñu samp ñoom ñaari président yi nag jamono ji daal bëgg nañu rek joxe a ma la coopération maanaam nag euh, joxalante bi nga xam ne am na seen ak diggante ci secteur yu bëri loolee ngir fexe rek ba daanaka ku ci nekk mën caa gis sa bopp wàllum pétrole mi tam desul ginnaaw ndaxte document programmation budgétaire ak économique pluriannuel jot nañu ko fësal lépp luy wàllu ko recette bor investissement ci pétrole beeg gaz bi lu ni mel DPBOP yëpp euh, fësal nañu ko diggante 2025 euh, jàpp 2027 bés bi le jour yéenekaay nañu nag carte sur table la diggante Macron ak Bassirou Diomaye Faye ñaari waxtu nag yoo xam ne jot nañu ko rek def na gi ni ay waxtaan protocole Diomaye bokk na ci li nga xamante ni jamono ji ni bu ñu koy xayma ab grille bu ñu koy gis tam ci beneen nag fànn beneen nag impulsion la boo xam ne daal mu ngi ci wàllu ko coopération bile communiqué bi nga xam ne nag moom moo tukkee ci ñaar ñi la bokk na ci tey ji lu bés bi le jour xëy na fàng ci xëtam mu njëkk le peuple yéen kaay nag nañu jamono ji daal protocole ba tàq na suuf lool bokk na ci nag euh, nuyoo bi nga xam ne daal ñu ngi ko ci fësal maître Juan Branco moom ne nag gàcce kot la am bu xoolee yëf yu ni mel Bassirou Diomaye Faye ab équilibré équilibriste la bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango waaye daal di ëllëm yéen kaay bokk na ci daal loxo bi nga xam ne moom Emmanuel Macron ma nga ko dugal ci poosam jamono ji nga xam ne daal ñu ngay fotowu jàpp na nag ni ni mel ab saaga la jëm rek ci Bassirou Diomaye Faye le peuple yéen xamle ne loxo bi le daal dafay wane ni ñoom ñooñe ñoom ñoo yor bourse bi maanaam bokk ak koppar ya waaxu wutali groupe Futur Média l'Observateur yi ni kaay xëyte ji daal dañu xamal ne coowal téléphone yi la ci biir kaso yi des nañu daal di jur coow bu ñu koy xayma pënd ba wureegu ca topp na ci naka tey ji ni naka rek la ay woy prisonniers yi daal di jëfandikoo téléphone yi la naka la ñuy def saal ba jot ci bokk na ci téléphone yoo xam ne daal ñoo ngi koy rof ci biir ginaar ya yenn ca puce yoo xamante ne ni ci ay ay lañu koy dugal waaye tamit lépp loo xam ne daal moom mooy maton yi ñoo koy liggéey ak ñoom bokk na ci tey ji lu yéenekaay bi xëy ne fàng ci xëtam wu njëkk libération yéenekaay moom tey ji la mu waxtaane bokk na ci coowal euh, chargé de mission yi lekk euh, pëccoxoo bi nga xam ne daal am na seen ak biir bu ñu koy xayma daal ab bambula côte la ko yéenekaay bi daal di duppee ndaxte nee nañ daal euh, mbiru ko Puma bile bokk nag ci programme d'urgence modernisation des axes et territoires frontaliers nee nañ daal bu ñu ko xayma jamono ji nga xam ne présidence ak primature rawatina rek ministère yi côte ñoom ñoo war a mën am ab chargé de mission loolee gis nañu ko daal ci Puma jàpp leen sax ni jamono ji benn fukk lañ ak ñaar ci ay chargé de mission te diggante jàpp montant cumulé maanaam nag koppar yi nga xam ne daal gis nañu ko ci wàllu payor ba bu ñu koy xayma ay millions yi millions la yoo ni daal kenn xamul daal fu anam yi la euh, koppar yi la daal de dugg ñu sukkandikoo ci euh, libération yi ne kay euh, mbirum enquête tey jii nii la ñu cay waxtaanee bokk na ci daal mbirum émigration irrégulière ak lim gi nga xam ne yéen kaay bi xëy na daal ne janvier ak weeru vingt 2024 euh, ñeent fukki bateau ak juróom-ñaar ñoom ñooñu nga xam ne réer nañ méngre kenn euh, gisu leen jamono ji ni ñoom ñëpp yeboon nañ rek gën ngaa néew juróomi junni ci doomi aadama kenn gisu leen ñoom ñëpp dafa mel ni faatu nañ bàyyikoo nañ nag ci euh, fukk ak juróom-ñaar ci réew yu bokkul fenn ci dendu Afrique yoonu Mauritanie bi moom mooy nag li nga xamante ni daal moom la ñu faral di jël jamono ji lim nga takku na ba loxo dar gémmiñ ña start yéeni kaay waxtaane tey jii daal mbiru ko coupe d'Europe ba France dana nag tey ji janno ak Pays-Bas ñoom ñaar nag ci ndam la jóge kon tey ji ku ci am ndam daal da nga wutal huitième de finale ya waaye France jamono jii daal am na ab laaj bu ñu sàmp seen ak kaw ndax Kylian Mbappé dana ca bokk am déet moom mi nga xam ne bakkan waa dafa damm taret keroog nag ci jongante ba bu ñu koy xayma tey jii daal ndax dana bokk am déet lan mooy njëriñu ko France ci bu fi nekkee bu fi nekkul bokk na ci tey ji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 Ngom ñu jaajëfal ko bu baax a baax mbokk yéen itam di leen jaajëfal yéen ñi topp depuis juróom-ñaari waxtu ba léegi woy leen di ànd ak ñun ñu proposé leen ngeen seetaan bande clip et juste après ñu dikkaat ci plateau bi.